comme ni ma koy waxee rek kawteef ci biir kawteef waaye dafa am agression bu méttee métti boo xam ne dafa am ci euh, route des Almadies waaye kan la dal euh, Baye Imam si baay Imam Sy nag ñu gën ko xam ci euh, Serigne Imam Sy nekk Serigne macha allah ku nekk xam na ko waaye nag dafa jóge woon fi nga xam ne moo di Jurbel ñëw am kilifa gu mag du mu dajaleel fii ci Ndakaaru hôtel bi ñuy wax fële ca Almadies King Fahd Palace kilifa gu mag a koo xam ne dafa nekkoon bitim réew am luñ jëflante woon nag moo nga jox xaalis bu bare bari bu takkoo takku lu toll ci quatre-vingt-cinq millions mu jox ko ko ba pare bi ñëwee ba ci rond-point Almadies bi ci lañ ko agressé agressé métti métti ba xaw ko gaañ jël li nga xam ne moo di quatre-vingts millions yi muy kawteef Sénégal jaaxal na ma daal lii daal yéem na ma trop dafa mel ni daal kaaraange bëréer ci réew mi waaye affaire itam luus na trop est-ce ñu koy itam